acca mbokk yee xarit yi ñu ngi amaan mbégte kontaan tey jàkkaarloo yéen ci site bu mag bi di Lutte Motivation ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy bàyyi xel bu baax a baax waaye ñoo ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci lal hôpital yi di leen ñaanal gudd fan ak wér la également tamit di nuy ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw di leen ñaanal li nga xamante ne mooy li weer di ñaanal réew mi jàmm di wax yàlla na jàmm ci réew mi waaye tey nag maa ngi yoof c'est un très grand champion c'est kenn koo xamante ni moo ngi def ay preuve am ci làmb muy Thiat Nguéweul la grand champion mu amoon combat bu spécial si diggante mag Baba Jaxal daan ko jël bu amul benn werante waaye tey moom lañ seet siwaat fas yéene waxtaan moom ci li nga xamante ni mooy làmb ak actualité dama koy baa mu nuyoo bu ko defee ñu woy li nga xamante ne mooy waxtaan bi maa ngi lay ziar Thiat. maa ngi lay fay Khalil di la nuyu bu baax di nuyu xës sa caméraman di leen bëggee bu baax di sant yàlla di julli si yonente bi di gërëm suma ñaari waajur di nuyu waa di nuyu Ngor Wakaam Yoff Almadi Traawo di nuyu waa Bambilor Kër Njaayloo Déen xam nga di nuyu waa zone boobu yëpp di nuyu waa Jandeer bu baax a baax di nuyu waa Tubaab Jalaaw aussi bu baax di nuyu bee Ibrahim foofu xam nga di ziar ñëpp di la ziar bu baax a baax. Eh. si waaw man maa ngi nii rek nekk si jaamu nekk waaw. nekk si li ma war a nekk. tournoi la woon. non tent bi damaa toog rek am jabu laal tent xam nga ñun moom. mooy lool chaque instant ak sunu xel fi mu nuy yóbbu ay kaana lan fu mu nuy yóbbu rek ñu dem fa. Mhm. mais tournoi yi. waaw tournoi yi football nan mais Pikine moo ñu gagné par tir au but quoi. Mhm. Mhm. kan mooy seen euh, bari nan ay meilleur joueur nag. mais man maay attaquant bi Dybala bi quoi. yaay Dybala maay Dybala. Euh, waaw gars yi raté nan mais man ki sama bu rëy bi ma dugal xanaa. waaw mooy loolu billaahi mais. mais initiative tournoi bi na ko gisee. waaw loolu rafet la ndax ñun ñii làmb tey jii famille lan ñoo bokk nday ñoo bokk baay làmb mu ñun ñoo dem sans journaliste yi. man journaliste yi mënuñoo dem sans ñun mënuñoo dem sans promoteurs yi ou arbitre yi. kon ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay benn famille la rek làmb moom famille rek. xëy na nag bis bu dara taxawee suñu diggante ñun bëri dina fa demee neneen des fois tamit réeroo du am suñu biir ak journaliste yeex yëpp mais ñun ñoo bokk nday ñoo bokk baay. dëgg nan nga gisee li nga xamante ne mooy lamb ji actuellement euh, euh, mbër yi nga xamante ne tey jii euh, ñu si bëri am nañu am nañ ay adversaires yu ñu bëgg bëreel mais gis nañ yooyu mun mënuñu koo am moytoonte bi loolu lool mun nga ko gisee. waaw ni ma ko gisee mooy lamb moo yàqu rek. làmb tey jii mu ngi dox quoi mais dafa yaaxu ni muy doxe du du mooy doxin bu normal bi tey jii ñu war a bëre ñoo war a bëre mais da ngay gis benn boy bu ndaw bëre benn combat ñaaru combat dem wëri sa paa ba kañ buñ paa yi daan paa yu du dara mbër booy daan da ngay daan say morom booy xool ñoom Balla gay ñoom Modou Lo danoo bëre seen biir Balla Gaye bi muy bëreeg Modou Lo moo ko bëreel grand combat Modou bëre spécial mais bi mu paree dafa bëreeg Modou Lo ndax ay morom lan man maa aadafaas bi nuy bëre mm-hmm. Ada Fass moo ma bëreel spécial moo rawul Kara. man ma bëri huitième combat bi mais après sunu combat dafa taxaw ndax dañ xam ne ay moroom lan. mais tey jii da ngay gis booy benn booy du fi bëre benn combat wala benn ñaar daan sa paa wala ñu daan la nga ragal dem uti sa paa mais ba kañ. booy dañ war a bëre seen biir làmb dafa yàqu te wallaahi lazim làmb ji du neex de. mais promoteurs yi ñoom ñoo yàq làmb ji. promoteurs yi waaw ñoom ñoo yàq làmb ji. loolu promoteur xam làmb ji dañuy ñëw. essant yi tëggatuñu làmb pour làmb ju neex mais dañuy tëgg pour booy boo xamante ne dafay indi yenn nit di ñu jël ko boole kaax paa mais imaginel booy buy indi ne nga boole kaax moroomam muy indi loolu bu boobaa combat njëndeem lay doon mais ñoom seen intérêt personnel chaque jour ndigeex lan bañ a fay benn xaalis bi ñu war a fay ndax óor na leen ni paay dépasse la ñuy daw pour dëgg la mais gis nañ tamit beneen mbir mooy léeg-léeg mbër dee daan toog di xaar comme ku su mel ni yow yaa ngi mel yaa ngi daan tamit toog xaar man xam nga lu ma fi téye mooy combat man combat kase ma fi téye te man damay man sama sama man sama làmb xës bi ma mënaan nu ma la ko xalil man bi ma débuté ba léegi musuma bëre combat boo xamante ni dan naan caatu ngéwél moo man wala bu amee sama carrière benn combat la maa jóob un laa mus a mu óor ma ni man ki may bëreel nii maa ko man est-ce que yaay comprendre te combat boobu booy xool ferew ma si un franc ferew ma si un franc bi may ñëw stade huit butéel la andi ndax xam naa ne kii man ak du mooy làmb joo xam ne dama se war a yëkk sama xaalis mais stade loolu moo fi jóg booy ño war a bëri seen biir làmb làmb la làmb du naxante làmb tey jii nga daan say paa ba dem àggu au sommet war a bëre ñenn ñu doo daan kenn am problème non booy ay tapet lan làmb ji ñëpp ay làmb ji booy ñoom ñëpp ay ragal lan yan la dëgg du neex non aw ma yi fii nekk di jël ay paa laa la wa A ba Z ay tapet lan amul kii amul kaa ragal rek kase moo leen jàpp. kase promoteur woo ñu di la proposé yéen booy. ay promoteur ñu ngi may woo di ma wax ay làmb ñu ngi may wax ay booy ñu ngi may wax ay paa mais man booy yi sax man ma bëreeg booy bu ndaw moo ma gënal ma bëreeg paa. dëgg la ma paa xam nga la moo tax bëgguma bëreeg paa mooy man man bër laa. Hmm. damaa bëgg su may bëre di bëre combat yoo xamante ne tey jii. Hmm. képp ku may topp sooy dem stade sa xel du dal. mais est-ce que tamit nekkul palmarès bu ris la ñuy xool boy yu bari yu ñuy jox combat palmaris leen gëna ris palmarès fouf xalé yow ki deug la ma leen gëna ris palmarès fouf ta buma la waxé man manam man ñima daan ay adversaire yo xamantene ay adversaire de qualité lañ voilà mais boy da ngay gis ko xamantene da ngay dem kaccaatu sa benn comédien feulé daan japp benn boy, bo xamantene ko ñam la nekk ñu yoo nga daan musta daan ken nga daan ñaar ñatt dem jël sa pa, ba kañ barki sayidina muhammad buñ waxante deug lamb mu ngi dox mais dafa yaaxu deug la nga daan champion ah, moy ki nga xamantene moy Baba Jaxal amna yeneen adversaire yooyu ñuy wax ah, ku ci mel ni ki nga xamante ne mooy Boy Diop numéro 2 Liss Ndiago yooyu boo koy dégg lan la lay def en tant que lutteur. non boo yooyu xëy na nit ñi ñoo koy wax mais man aw ma aw ma lu ma ciy dabaa xam nga la moo tax aw ma ci programme mooy maanaam maa leen ëpp ñi ma daan musuñu mënuñu leen a daan maa leen mën fuuf kon aw ma lu may wax ci ñoom ñoom nag buñ fi nekkee man lamb laa fi nekkal bis bu xaalis taxawee ñoom ñu dëggal seen bopp bëgg maa la ak coow ku ci ñëw ma duma daan la maa leen mën fuuf mais da ngaa war a bëreeg booy yi mais déggoo li ma la man bëreeg combat jànq moo ma gënal bëreeg paa ba ñu maa bëreeg ñoom mm-hmm. mais xam nga à cause de lan mm-hmm. man na mbër yoo xamante ne tey jii nii daa am yoo xamante ne daa am lu leen tënk man ak ñoom mënuñoo bëre du laa maanaam mënuñoo bëre quoi loolu laa la bëgg gàttalal wax ji mënumaa bëreeg ñoom yéen mbër yi waaw daa am lu leen tënk te li leen tënk man mënumaa bëreeg ñoom loo bëgg wax foofu. non xam na li may wax bu baax. waa am na mbër mu am na mbër moo xamante ne mu ngi ratatati mu wax waa këram. di ratatati lu ne ñu ngi koy wax di dugg fii di génn fii mais mënumaa bëreeg moom ndax am na lu tax man xam naa li tax mënumaa bëreeg moom. daa daa am lu la dee wala wala daa am looy moytu wala lan la. non non man aw ma dara lu may moytu yow man maa gën a dof si làmb ji man ragalu ma dara. Hmm. barki Seydina Mouhamad ragalu man aw ma dara lu ma ragal. sa digganteeg Boy Diop loolu combat amateur yi la amateur yi ñoo bëgg boobu làmb ndax tey jii promoteur bu la seet si woon di nga jël avance. promoteur bu ma seet see fay ma loo xamante ni jaral na ma ko dinaa bëre ak Boy Diop mais Boy Diop sax du ma moromam Boy Diop maa ko mën fuuf yëmbal maa fa man ak nu mu dangereux noonu barki Seydina Mouhamad maa ko mën lundi ba dimanche li may toog sax di wax si moom dama koy may coow mais dama xam ne am na coow ba pare su bëggee maanaam su bëggee su bëggee yoonam continuer eh. na ma fi teggi maa yëmbal laa la wax eh. barki alxuraan maa fa man billaahi eh, caat jaar yaa ngi dugg fu fu wul sensible barki Serigne Touba li ma lay yëmbal maa fa man billaay wallaay maa fa man Boy Diop musul daanu ndax bëreeg mbër moo xamante ni musul daanu ndax dina yomb mais Boy Diop ñan la bëreel bëri na ñan bu booy bi mujjee daan ni te booy bi mujjee daan donte ni ndaanaan la mais mooy loolu ñoom ñaar ña musoo gee musoo fee gis ku fi daan maanaam mbër moo xamante ni óor na la dan naan kii tey daan na Farou Diar daan Clémenceau daan ñeneen ak ñeneen Farou Diar kañ laa ko daan du jamono yi yëpp mais champion la. Farou bi ma koy daan du jamono yi yëpp te Farou Diar bu réew ma moom. une minute. dama ko jàpp mu ñëw li ma dóor ko. jàpp ko manipuler ko wëndaal ko tëral ko kon ni ñuy tërale xaru tabaski barki alxuraan image yaa ngi fi. rawal mais mais mais ñu si bëri euh, ñoo ngi commentaire naan Caatu Géwël est-ce que lu Boy Diop di def est que dina ko mën a def affaire yooyu yooyu. non ka Diop cool yi mu ngi bëgg bëri si Boy Diop sax Boy Diop bu naaw Boy job, Boy Diop day mel gars yi ñoo soxla làmb ji. Diop de man maa man seen secteur foofu monsieur le maire laa fay xëccu. mais yéen ñaar si digg géew. doyalu ma fa sax monsieur le maire mais yéen ñaar si digg ñun ñaar digg dip. barki dip arbitre génne suñu diggante mu daanu. ak qualité bëre yu nekk ci moom. zongale mooy qualité bëre. zongale mooy qualité bëri. mais mais ko xeebal ay qualité. non la mu ngi si yoonam di dem quoi mais bu dee man Diop de laa la wax. Ah. ñàkk du feeñ si taw. mais yooyu noonu ku mu ko mos a def wàcc. non ñàkk du feeñ si taw déggoo li ma la wax. xam naa li nga wax. ñàkk du feeñ si taw. voilà zongale boobu muy def caatu baay paate moo ko sut moo ko def le moo ko gën a moo ko gën a doon daanaan te ba ma ko jàppee yëmbal dama ko zongale moom sànni fële. moom la déggee kon yow booy yo yow yow mooy loolu. maanaam. wallaahi azim buñ mën a buñ mën a ree sonal nag buñ mën a ree sonal buñ ma fayee xaalis mën na maa bëre moom mais bu dee daa bëgg yoonam na tey gi Diop 2 maa ko man mais am na ñu ne Caatu Ngéwél gaa combat boobu gaa yi ni nga ko jëlee ndax ndax risque la quoi. non man déggoo li ma la man bi man si risque laay dox àdduna lépp risque la. man man bëgguma dund sans risque. mais booy moom day xeex laata muy bëre dañ dañuy da da tal waaye kooku barki alxuraan du dama koy minimiser du dara wallahi maa ko man barki alxuraanu karim maa ko mën fuuf. mais bëre góole bëre góole musu musoo leen laa. musu ñoo bëre mais maa ko man. billahi maa ko man wóor na alxuraan. mais mais amul benn promoteur bu la ko mos a proposé. non am na ñu ma doon woo di si wax ay détails ak yooyu mais moom daa am lu ko tënk sax quoi daa am lu ko tënk moom li ko tënk noonu yàlla na am combat bu baax dem bëre ju ko quoi. beneen boobu Liss Ndiago. beneen booy boobu tamit yaa ko wax daanaan la mais nag moom daa mel ni paa la gën a choisir. non instant moom moom moom nee na moom ay dóor mu daanu la dese nii. non ay paa la choisir xam nga tey jii nii mag mag mag naa la xamal mag mën na fi nekk nii mais yax si biir lay fënaxe moom ki mu mujjee bëril Ya na ni ubna na ta apala dan man buma ma pa paa du ma ko ndamoo ndax duma fekk ko xamanteni ni man matna ma papa ma dan ko di tok di ratatari bu boba man wayof ñuma dekkal dëkkal bu dee ay nit it lan dinañ ni ma boy demal nga entraîner ci te nga jema dan sa morom. mais yow mun nga dem ba ay pa bu sama carrière ña xam nga fa la laa si ñaan yalla bëree kuma mag. Ah. moy may egg au top. mais li sam li ne sama carrière dama bëgg di bëri ay combat jank ba kéro ma yag fi man bëgguma ken xalal ma dara xam nga la moy problème bi xalil man ndaanaan la man bu ma bu ken xamul sama ndaanaan man xamna naa ne ndaanaan laa nga xam lu ngay jar man waaw man ne ndaanaan laa ku setan sama ay combat setan ak ñima beurel bëreel di nga xam ne kii ndaanaan la deug la mhm. mais mais mais Liss tamit mom nak promoteur yi tamit ñong lay proposer yoy lamb non man dan ñu may wo di ma wax ay lamb mais xam nga tay ji man bu guma di sori si ñom mm. ñoom ñooñu ñooñu ñep maa ngi ëpp ay combat maa ngi ëpp ay victoire maa ngi gën a daan ay mbër yu të est-ce que te maa leen gën a sañ maa leen man moo tax bëgguma di débat si lu bari hmm. mais mais mais mais mais yow lu tax ñu lay proposer lamb yooyu noon champion nga naanaan nga te booy tamit euh, amateurs yi ñooy bëgg yooyu lamb euh, tey jii boo dégg amateurs yi di di di di wax yooyu noonu ah, pour man da nga war a mën a sawar a bëreeg booy déggoo li ba ñu maa bëreeg kenn man ba ñu maa bëreex kenn déggoo may la man ay combat jànq mooy mooy dundal sama deret dama bëgg combat jànq mais tey jii booy ay tapet lan Diop de moom ngay gis moom bëgg na ma waa këram bëgg na ma maa ngi dégg ay détails mais dafa am lu ko liyee moom dafa am lu ko téye maa ngi la koy wax si biir wax boobu ba léegi daa am lu ko tënk te li ko tënk noonu man mënumaa tënk ah. am na solo waaye doo dem te duma la laaj ci ci ci ci li nga xamante ni moo am muy signature bi ñu war a def fële face to face si diggante Ama bale ak Modou Lo boobu làmb en tant que mbër nan nga gisee làmb jooju. waa lamb jooju ni ma ko gisee en tant que mbër mooy làmb la joo xamante ne day dundal làmb te saa yu toll ni ñun danoo soxla affiche yu mag yooyu. ñun ñun mbër yu ndaw yi dañoo soxla affiche yooyu noonu ndax VIP yi mooy ni ma koy waxee ñoom buñ amul valeur rek ñun duñu am valeur mais comme muy Ama Baldé muy Modou Lo nan wax ak ñi ñuy te am fulla am fayda matiir am yoo xamante ne ñoom ñun ñoo ko waroon a def muy Ama Baldé muy côté Modou am na yoo xam ne ñun ñun sanu wareef la woon ñun booyu ndaw yi VIP man ku dal seen kaw ma dal sa kaw ndax xam naa ne ñoom buñ amul valeur man duma am valeur mais dafa jot VIP ñoom am muy Ama Baldé muy Modou Lo nan am fulla ñu matiir mm. ñu xam ni ñoom tey jii nii làmb lan fi nekkal te seen combat boobu noonu mu am daa am leneen loo xamante ne da koy defaat si làmb kon ay violence sax ay ñi ñuy àndal ku leen nar a yàqal na leen xaar kër ga ku bëgg ku bëgg rayante nga jëlante numéro oowante téléphone rayante mais sunu làmb nga la lawaay buñ ko salteel combat boobu xalil mhm. wallaahi démb rek la toog di fa waxtaan dafa doon loo xamante ne daa am feneen fu mu muy yóbbuwaat làmb mais ñu gisoon ki nga xamante ne mooy euh, Modou Lô duggoon na Pikine ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène ñoom ñaar kere gis nga lu làmb demee Eumeu Sène jël euh, euh, tànk li euh, tànk Eumeu Sène ñetti yoon tànk Modou Lo ñetti yoon tey ji Ama Baldé ndax bu jëlee tànk Modou loo ndax dina ko travailler. waaw Ama Baldé mën naa jël tànk Modou loo daan ko mais mën na koo jël tamit du ko daan ndax Modou Lo dama lay wax fii lenn ci moom. Mm. pied droitier da kaa jublu képp kuy teg pied droitier. Mm. booy bëreek Modou Lo ba boo booy ñëw nga ñëwee nu wóor sinon boo ñëwul nu wóor rek après leneen mën na la see fekk ndax tey jii Modou Lo gars yi la ñuy mooy gars yi dañuy juwaarle dijj ak dëgër Modou Lo rëyul mais dafa am doole Modou Lo VIP bokk na si ñu si ëpp doole VIP man soo ma doon wax ku ëpp doole Modou Lo kenn laa lay wax doole comme nii di ñu naan doole la dageer kase mais keneen ku si des Modou loo mool la ëpp doole ñoom ñaar seen qualité bëre seen qualité bëre Ama Baldé ndaanaan la kullu fatlin man moom laa gën a miin sax que Modou Lo ndax damay am combat mooy conseil mais Modou Lo tamit champion la te bu fekkee ni man damay joxe favori rek Modou Lo laa koy jox wax loolu non parce que Modou moo gën a am lu mu wane Ama Baldé si làmb waaw ndax Ama daa war a taxaw sur place xeex ak moom Ama daal li ko daa may ndam bu mu ko bàyyi mooy dem boobu naka jéema a def. waa waaw sinon bu taxawee di fa xaar leneen combat bi mën naa metti quoi. bu la déggee warul may Modou fu mu xalaatee. non non nit ku nekk sama nin sama nin bu ko bàyyi mbër seetlul li ma lay mbër bu si bàyyi ma ninam daanu. Modou Lo naka la war a recevoir Ama Baldé. Modou Lo ni mu war a recevoir Ama Baldé Modou bi. instant mm. yii toll nii amatul lu muy gagné si làmb ak muy perte si làmb. mu war a recevoir Ama Baldé mooy arbitre neppi mu toog si tànk yi. Mm. waaw arbitre bi sifflé Ama dóor Modou Lo Modou Lo boobaa naka la nar a naka la nar a demee. non xam nga ni Modou Lo moom ku ko dóor day fayu. lamb moom door ak dóor la rek li naan dóor dëkk la woon fayoo ko tas. mais combat bu loo si mën a dégg di nga gis combat bu ne man ngir yàlla li ma leen di ñaan mooy. ak ñi ñuy àndal ak lépp lu mën a xew ñu moytu côté violence bi quoi nan moytu loolu. bëre bi dina gaaw. waa am naa si yaakaar. waaw. fan lay fan fan nga xalaatee di bëre bi mën na faa jaay ci côté saako yi wala. bëre bi Ama Balde arbitre mën naa def pib mu jël Modou Lo daan ko mais Ama Balde arbitre mën naa def pib mu jël Modou Lo Modou Lo daan ko. daan bu baax di bëggee ñëpp nag. Mm-hmm. di di di bëggee sama doomu nday bàyyi jili tarkindaa donte ni léegi moom. Mm-hmm. li baaba jaxal doon wax sa dëgg la moom. is ka du lale Baba Diakhal lan la ko ah, waaw ndax moom day daw di laaxu waa mais nag sama doomu nday la maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di béggee waa alaaji paate di di jël nuyoo bi di ko teg si loxo wu karaa borom mafia bu dëgër bi borom paate sama doomu nday di béggee bamba rakam di béggee zil sama doomu nday di ko wax ne ko yow dara yàggul léegi rek incha allah xam nga di béggee waa yoof di béggee ngor wakaam yoof di béggee sama gaay nag bu baax a baax di bëgg mbayaar yi bu baax a baax a baax a baax di bëgg sama tons caas mbay di bëgg bàyyaa ku mu ndaw sama ma xam nga di bëgg sama yaay bu baax di bëgg sama xaritu yaay yi bu baax a baax di bëgg sunu waa kër ñëpp di bëggee yaasin kuli tamit sama rakku yaay maa ngi koy bëggee bu baax ku mën a sonn sama ay mbir la xam nga di bëggee yaxi bambiloor sama doomu nday di bëggee waa bambiloor yëpp di la bëggee di bëggee xas daali di ñaan waaw dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg di ñaan ikir yoof tamit yàlla defal leen jàmm waaw may nu ay combat ku si am komba yàlla may la ndam di ñaanal Konia 2 aussi am na combat moom ak Milkouzo Bragal Peete day xañ a wërsëg Milkouzo nit ku baax la mais Konia c'est mon ami de valeur maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam lu see dugg